mais centre bi dañ ko indi def ko ci clinique privée bu nga xamante ne tey bu urgence amee malade yi amuñu lu leen évacuer bu ñu wootee ambulance bi leen war a jël si pour yóbbu leen daamatu ambulance yi des fois ñu ñëw des fois du ñu gis ambulance ñu ne ambulance yi dañu panne am na ñoo xam ne ci taxi lañ leen di mujj teg yóbbu leen te temps bi ambulance bi di ñëw aussi malade bi mun na si loru parce que am nañ ay malade yu bari yu nga xamante ne tey loru nañ fi ci problème yu mel noonu moo benen problème bi moy deuxième étage lañu nek deuxième étage ascenseur bi mo fi n'ek ascenseur bi dina tok lu mat deux mois trois mois yo xamné du dox. état bi dafa investir mu nekk centre de référence bo xamné Afrique de l'Ouest amul hôpital centre dialyse bu ko fi gën té ñu ko tej kenn nekku fa. kon nañu tej centre bi ñu jël ñu transférer ñu yobu ñu fofu bu féké dafa am problème personnel ñu jël ñu ak suñu personnel yobu ñu fofu